Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ziar ñep di magal ñep di bëggé ñep di wax né tay nak euh, dañ leen di wo ci bis bu mag bu kawé bu tedd bi ñi waajal mu bisu gamu ku ñu xam nak xam ne gamu mom moy bis bi gëna mag ci suñuy suñuy bis wa may wax né ren nak dañuy def focus ci benn mbir mu am solo way moy euh, don de sang bi nga xamante ne dañ koy def chaque chaque année rek dañ koy dañ koy dañ koy jëmmal waaw euh, ñu ko daan def ci jouru gàmmu bi nag waaye ñu seetlu ne ñu bari gis nga ko dañuy xaw a sonn wala ñu xaw a jàpp ba tax lool noonu euh, résultat yi ñu ci bëgg daal duñ ko am ren nag ñuy wax ne ñu ngi leen di woo yéen ñëpp euh, góor ak jigéen mag ak ndaw surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk fii yëmbal wante rawatina góor yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo sekk ñoom ñoo sekk bis bi muy bis bu màgg bi Euh, don de sang bi nag fi mu toll nii ñi ngi koy def ci veille bi waaw bu ko defee ñu xam tamit ne consultation gratuite bi niñ ko daan defee rek moom lañ koy defee ba léegi ci jouru gàmmu gi lay am si suba ba ngoon ku ñëw rek consulter wu dinañ la wax lan moo ne sa yaram ba pare dinañ jël garab may la wax dëgg yàlla boo demee nga xam ne dina mën a saafara sa jàngoro may fàttali jaamu yàlla yi ne wax dëgg yàlla maye deret lu am solo la ndax boo seet loolu ëpp ci soxna yi bu ñuy def accouchement 66 pour cent centage boobu noonu dinañ ñàkk seen bakken si li nga xamante ne moom mooy manqué deret kon maa ngi ñaax ñëpp di ci soññ ñëpp di wax ne sa deret boo ko mayee wax dëgg yàlla dina tax nga xam yan feebar moom moo nekk ci yow ndax euh, analyse bi dala koy génneel nga xam ne boo xamee sa groupe sanguin euh, lépp loo xamante ne rek. Euh, baaxul ci yow di nga ko mën a moytu ndax loolu day indi gudd fan ak wér gu yaram bu ko defee ñu yemale ko foofu di leen di di leen siy ñaax rek di euh, répété waat ne veille bi la veille bi la ñu ngi koy def veyu gàmmu nag ñépp ñëw jox seen seen deret te yàlla tax mbégte ak contentement la ñu am bu baax a baax a baax ngir lii dafa am solo bu baax bëggee nañ màggal nañ ziyaar nañ bu baax a baax